jërëjëfeti borom Tuuba jërëjëfeti ki jara am Sidi Ibrahima Fall jarama jërëjëfeti borom Tuuba jërëjëfeti ki jara ki jara am sidi ibrahima fal jarama jere jafati borom tuba jere jafati ki jara am sidi ibrahima fal jarama jere jafati borom tuba jere jafati ki jara am sidi ibrahima fal jarama xadima fal jaarama xalla xaliilu sixra fal kamaalu mooy abantaqiyi sayidi rijaalu xalla xaliilu sixra fal kamaalu abantaqiyi sayidi rijaalu xalla xaliilu sixra fal kamaalu سرب الكمال قبل تقي سيد رجال تغور يالا ييغي غور فيالا كوماي كاكو ييغي دو غيس بور يالا تغور يالا ييغي غور فيالا كوماي كاكو ييغي دو غيس بور يالا غور جابو جي غور غور ييغي غور نيا ka yéegee góor ñaay bàyyi Abdou Faal Sidi Birahim Faal bàyyi Serif muy góor ka loqati lancub yàlla ba tasaare ngir ya Sidi Ibrahima Faal bàyyi Serif ay góor ka loqati lancub yàlla ba tasaare ngir ya خلاط الأنبياء توفيق الأرقياء قلب له طبيبه كما دليل نجباه سراج الأولياء قلب له بسطت يا باسط أمالي لي بردا فاذكر مباسط الدارني الله خفت يا خافد أحداء لي ومدو لخير النهوي بخفض منك يا الله رفعت يا رافع دارين مرتبتي bilan xifaadin bi fadlin min ka yàllaaw antal mu insu la si laa samtu insoto xillan muasan waay ban fii ka yàllaaw antal mu musillu la si sallal li sati al insu wa jinn wa seytaan yàllaaw anta samiu la si naajaytu samanan wa bil masaraati lii xat jutta yàllaaw antal basiru la si lii xaada jumlatama lixtarta dunya wa axra min ka yàllaaw hakamta ya akimu باخي بكونك سا فشي بما خاب من بسراك يا الله حتى تياحد أعدائي بخير لقاء ولا درار ولي قد كنت يا الله أنت اللطيف الذي قد خدت لي أبدا لطفا عجيبا يسيد الفكر يا الله أنت الخبير الذي آينت خبرته وخدت لي منك علم الخيب يا الله أنت العليم الذي سهسرت جملة من lam tardahum lii li xayri dahra yàllaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi teew yépp mbokki taalibe sang su tedd si jànkati xasida yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di jiital ci suñuy kàddu ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mamadul Bachir yàlla na ko suñu borom yàggal may ko wér defal ko mboolem njabootu Cheikhul Xadim gépp di nuyu bu baax tam sëriñ Moustapha Lo mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahim ak sëriñ Modou Maylo mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Amsatu di ñaar suñu ñaari jàmbaar yooye yal nañu leen yàlla fayal ci barki Cheikhul Khadim di nuyu bu baax kilifa yi fi teew ci turu sëriñ naa waaye ci turu magam di sëriñ Ibrahim xalil Lo mi xalifa Baye sëriñ Dame loo yàlla na suñu borom dolli ay leeram taas ci barkeem xam naa lu ñàkk sëriñ bi dana joxe ab dog ñu dolli ko defal ñaan ndax moom yaakaar naa ne ni ma koy waxee kenn du ko fàtte ndax ay jëfam yu rafet addina nag borom daarul moxti newoon na ci ay lay mujj fii la newoon lii la doon def fii lañ ko def na fexe ba bu la kenn gën a rafet ay rëdd loolu la boroom daarul moo ci waxoon bisu borom bisu démb bi kon nag niñ bëgg a tërale programme bi ci ndigalal suñ naa mooy Serigne Makhtar la mii toog la ñuy jox kàddu gi mu lim délégation yi suñu noppee ñu jox Serigne Bàcci Diop mu ubbi njàngum xasida mi suñu noppee jox kàddu gi Serigne Abdoulahi Ndiaye murid saadix barki démb rek lañ demoon fekki ko ci bisu xasida boobu mu doon def waaye di ci santaale tam suñu waajur bu baax bàyyi suñ loo moom mooy jël kàddu ci turu njaboot gi maanaam taalibe yi suñ noppee tam danañu jox sëriñ Ibrahima Khalil Lo mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di mag ki sëñ naa moom itam mu yëkkati kàddu ci turu njabootu bàyyi sëñ Dame ak njabootu Cheikh Ibrahima gépp waaye itam bis bi dañ ko tuddee sëriñ Cheikh Lo Ngaabu te kenn ku nekk xam na ne sëriñ Cheikh Lo Ngaabu nekk na xalifa Cheikh Ibrahim lu yàgg waaye jëf na fi jëf yoo xam ne kenn dootu ko fàtte ci zahir ak ci baatin bis bi itam sëriñ naa tudde ko ko njabootam ñëw fi incha allahu taala ki war a yëkkati kàddu ci seen tur mooy sëriñ sëñ Fallou Lo moom itam incha allah danañ ko jox kàddu gi suñu noppee ci loolu itam danañu jox sunu kilifa gu baax gii di sëriñ Muntaxa gi moom itam ñëpp xam ko ci xasida yi mu ciy taxaw taxaay bu rafet moom itam mu yëkkati xasida su ko defee Cheikh Ibrahima mbay mooy tëj jotaay bi kon noonu lañu bëgg kàddu yu toftaloo ni su ko defee nag kon kuñ jox rek yow yaay xam ne li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li dañ koy def ay pàcc pàcc rek su ko defee lépp mën a yeween kon noonu la liggéey bi nar a tëdd incha allahu taala kon xam naa dañuy jox Serigne Makhtar Silla mu lim délégation yi su ko defee sëñ bàcc jege si ubbi. Euh, mi ngi tàmbalee ci xalifa Serigne Ibrahima Lo Serigne Moustapha teew na fi ci suba ànd ak ñenn ci njaboot gi koy ñaanal bu baax yàlla guddalu fanam te ko te sëriñ ndam loo bi mu fi wutu yàlla yokki leeram jaay Cheikhul waa kër sëriñ Cheikh Lo mi nga xam ne moom la sëriñ Cheikhouna naa bis bi ñoom ñëpp teew na fi mën nañ cee lim ab xalifaam sëriñ Cheikh Mbacke Lo àndoon ak i rakam sëriñ Cheikhouna Lo sëriñ Saliou Lo Serigne Abolo ak Serigne Abdoulo ñu mel ni buñ limee ñooñu dañu yóbbaale ñëpp waa daayira Mawahibou bu Dakar di ay taalibe Serigne Modou Lo ñoom ñëpp teew nañ fi bu ñu limee jawriñ ja Serigne Mamor Touré mu yóbbaale ñëpp waa daayira Mawahibou Nafih bu Saloum teew nañ fi waa daayira Wakana Haqqan bu Ngunjaan teew nañ fi sëriñ maam Mor Mbacke Mourtada teew na fi sëriñ mam Cheikh Anta Mbacke teew na fi sëriñ na mu sëriñ Moustapha Hassay teew na fi sëriñ Abdou Khadim Lo ibnu sëñ Abdou Khadir Lo sëñ Abdou Khadir Lo teew na fi sëriñ Abdou Salam Lo mi nga xam ne mooy village moom itam teew na fi njabootug sëriñ Abdou Wadoud Bousso ci njiital sëriñ Abdou Lahad Bousso teew nañu fi sëriñ Cheikh Abdou Mbacke tamit teew na fi Bunaaba joog ñu xam ko bokk ci jëwriñu daara ji ñu ngi koy sant bu baax sëriñ Souleymane Seck sëriñ Cheikhouna Camara ak waa Ndakaaru gépp teew nañ ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te at mu jot ñu koy gën a gën a gën a gën a jekku gën a jekku ndigal li te gën koo tal di barke Cheikhul Khadim ba tey euh, sëriñ Amdi Sow teew na fi ci turu sëriñ Ibra Sow fële ca daaru saw kon mu mel ni li fi teew lépp ni ma ko waxee rek xajuñ ci carnet ji waaye buñ ci limee ñooñu dinañ yóbbaale ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waa sapeur pompier tamit ñoo ngi leen di sant bu baax ci suuba léegi ñoo ngi fi di fi amal liggéey mucc ayib lool Mouhamed Sow Diop bu euh, RFM Mbacke suñ seexu naa ne mi ngi koy sant bu baax ci jàppandal gu mu doon def ci wàllum communiqué yooyu di jàllale bis bi kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi sant baax di gërëm sëñ Cheikhouna tam nee na képp ku fi teew rek gis na la yëg na la safoo na la te it mi ngi ñaan jéego yi ñëw yi ak dellu yëpp yàlla nañ gërëmal sëriñ Touba kon ñu ngi sant baax di gërëm euh, sëriñ Maxtaar kon su ko defee dañuy jox sëriñ Bàcci Diop moom itam ñëpp xam nañ ko ci xaside yi mu ciy bégal murit yi su ko defee mu ubbi jotaay bi بالمناجات وابد أخنا يدي هنا قصيدتي فاخت خزائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام رب العالمين الحمد لله رب العالمين جرجفتي سرين داملو سنو يا كارجا سنو سانغبا sunu jàmbaar ja sunu xarit ba yàlla ko yàlla fayal wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa yi gannaaw ba nu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi santaat cheikh na cheikh ahmad bamba xaadim rasul di delloo njukkal sunu sang ba sëriñ ndaam loo di fab sunub nuyoo ak sunub siyaar di ko teg ci loxob Cheikh Ibrahima Khalil loo mi nga xam ne moo toogeeb jataayam tey ji ñu ñaan yàlla sunu boroom mu yàggal ko fi lool te kàttanal ko te wéral ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal wajuram wu tedd wi mu àggale ko coleet ci sago ak tal te ànd kook ay rakkam ñëpp ak mboolem taalibe yëpp nuyoo bi buñ ko tegoo ci loxoom danañ ko tegal ci loxob sëriñ Seexuna Lo moom sëriñ Ndaam mi nga xam ne moo woote bés bi waaye itam danañu ko jotleel ci mboolem kilifa diine yi fi teew njabootu Cheikh Ibrahima Lo gi yëpp njabootu Cheikh Amsatu gi yëpp waaye njabootu Ngaabu gépp di yëkkat suñu nag ci turu mboolem taalibe yaakaar Cheikh Ibrahima Lo du ma ne ñi yaakaar sëriñ Ndam Lo ndax bés bi bésub Serigne Cheikh Ibrahima Lo la mboolem taalibe bu aju ci Serigne Ibrahima Lo rek sa kàddu laay waxe kàddu yi nag xanaa kàddu yi cant rek cant gi nag ñu di ko tàmbalee ci njabootu sëriñ bi ci seen pëstef ak seen taxawaay ndax kat yoon wa leen seen wajur wa xàllaloon ca lañ jaar te mooy siraatal mustaqim amuñu benn réeroo seen lépp benn la muy bëgg sëñ Tuubaa liggéeyal seen waajuru Cheikh Ibrahima Lo kon sëriñ bi sëriñ Cheikhouna naa bi képp taal bi yëpp a ngi maase di leen sant di leen ñaaral fan wu gudd ak wér gi yaram ndax kat la leen seen waajur waxoon ci taalibe yi yéen a koy doxal ndax mos na maa toog mu ne leen bu ngeen ma gisatul na ngeen ma jàppal taalibe yi man lañu am waaye ñoom laa am kon loolu yéen a ngi koy doxal bu baax a baax ñu ñaan sa borom gën leen ci saxal ah di sant njabootu dëkk bi waa daaruloo gis nañ seen taxawaay ci bés bi waa laa waa dagga waa waa ngaabu daara ja ñoom ñëpp gis naa leen fi ba waa Saalum afe murit gis naa leen fi waa Noto ñoom ñëpp gis naa leen ñu ñëw laxasaayu ànd ak Serigne naa ci bés bi waa duy sangu it teew nañu fi ñëpp jàpp ci bés bi te yaakaar naa lu fi waaye def rek nun ñii nga ko defal ndax euh, sëñ seexoon naa wax dëgg yàlla ku xam sëriñ bi rek xam nga ko ci bëgg sëriñ bi ak doon ko liggéeyal ba mu ko noppee ji si itam fetlib laxasaayam ci ay kilifaam ay magam ànd ak ñoom àndin wu rafet di siyaare sëñ Modou Lo mi nga xam ne moom itam ba ko sëriñ bi joxee ndigal ci bés bi moo ko ko jëmmal daan fi ànd ak moom at mu jot xëy na ren ji daa am ngant waaye moom it ñu ngi koy beral siyaar ak mboolem njabootu sëriñ bi ñu fi teew sëñ Cheikh Abdoulou ak mboolem bu ñu tuddee eh, sëñ Khalil rek boo ci sëñ Muntaqa mi mu jëfeeñ jamono tudd nañ ñëpp ak mboolem soxna yi kon ñoo ngi jégalu ci kàddu gi bu baax wa ma tawfiiqi illaa billah mi ngi ñuy nii ñun njabootu sëriñ bi yëpp. nee na ci yëpp muy bàyyi sëriñ Damlo. di leen dalal bu baax. te di leen dalal bu baax. ci dëkk bii ngeen ñëw. ci dëkk bii ngeen ñëw. ci turu Serigne Moustapha. ci turu Serigne Moustapha. moom mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu jiite njabootu Cheikh Ibrahima loo gépp. moom mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu jiite njabootu Cheikh Ibrahima Lo gépp. di ñaanal suñu borom yàggal ko. di ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko. te dëral ay tànkam. te leeral ay tànkam. dëral am xelam. leeral am xelam. dolli ko kattan. dolli ko kattan. ba mu yeggale liggéey bi. ba mu yeggale liggéey bi. fa ko ñëpp yéene woon. nee na fa ko ñëpp yéene woon. di leen dalalit ci biir kër gi. nee na di leen dalalit biir kër gi. nga xam ne kër la goo xam ne. nga xam ne kër la goo xam ne. ni ko borom daan waxee rek. nee na ni ko boroom daan waxee rek. moom kër sëriñ tuubaala la. nee na kër gii kër Serigne Touba la. ñëpp fi tolloo ay wàccuwaay. nee na ñëpp ñoo fi tolloo ay wàccuwaay. Eh, ki ki xëy si. ki xëy si xam naa li ñuy wax ganuk suba li ñuy wax naan ganuk suba xam naa mooy dalal goog ngoon mooy dalal goog ngoon loolu rek moo tax ñu di leen dalal nee na loolu rek moo tax ñu di leen dalal waaye kër gi moom waaye kër gi moom aada ji mooy aada ji mooy kër sëriñ Touba la kër sëriñ Touba la ñëpp a ko bokk ñëpp a ko bokk loolu la boroom daan wax nee na loolu yi la boroom daan wax kon nag nee na kon nag eh, noo ngi ñaan ci kàttanu yàlla ñoo ngi ñaan ci kàttanu darajay liggéeyal bi mu liggéeyal yàlla. darajay liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko yàlla. moom sëriñ bi. moom sëriñ bi. te ñëpp mat ci seere. te ñëpp mat ci seere. suñ boroom faj ajo yëpp. suñ borom faj ajo yëpp. dindi ràgg yëpp. dindi ràgg yëpp. faj soxla yëpp. faj soxla yëpp. saafara tawat yëpp. saafara tawat yëpp. barkeb sëriñ Touba eh, bis bi nag. nee na bis bi nag. bisub cant la. nee bisub cant la. gum daan sant Cheikh Ibrahima Lo. boo xam ne da ko daan sant Cheikh Ibrahima Lo. heure bii daaw da doon wax ne. nee na heure daaw da doon wax ne. su ma mënoon a soppi xobi garab yi. su ma mënoon soppi xobi garab yi. ñu may sant la Cheikh Ibrahima Lo ñu danaa ko def danaa ko def. kon nag. kon nag. Euh, Serigne Cheikhouna. Serigne Cheikhouna. pas-pas boobu sëriñ bi am. nee na pas-pas boobu sëriñ bi amoon. yow nga am tawféex di ko sant. yow nga am tawféex di sant Cheikh Ibrahim. kon xam nga ne. nee na kon nag xam nga ne. da nga ci dajee ngërëmal sëriñ bi. da nga te jàpp naa ne loolu rek ngay wut. te nee na jàpp naa ne loolu rek ngay wut muy ngërëmal sëriñ bi. ndax kat. ndax kat. moom pas-pasam ci sëriñ bi. moom pas-pasam ci sëriñ bi. daa doonoon pas-pas bu rëy. nee na daa doonoon pas-pas bu rëy. daana yëngal ay yëguwaayam. nee na daana yëngal ay yëguwaayam. day ba yàgg. day toog ba yàgg. xelam dem ci sëñ Ibra. xelem dem ci Cheikh Ibrahim mu perte ay yëguwaayam nee na mu perte ay yëguwaayam ñun ñu ko jege woon nee na ñun ñi ko jege woon fekk nañ ko ba tàyyi nee na fekk nañ ko ba kon nag nee na kon nag yoon woowu mu doon rek yoon woowu mu rëddoon rek mooy yoon wii nee na mooy yoon wii ah nun nag nee na nun nag noo ngi sàkku ci ñëpp ñoo ngi sàkku ci ñëpp nu ñaanal nu ñu ñaanal nu ba suñ borom dolli nu kattan ba suñ borom dolli nu kattan ba li nga xam ne moom la bëggoon. ba li nga xam moom bañ koo wàcc rek. bañ koo wàcc ba fekki ko rek ba fekki ko rek. ndax moom lim lim war a def. ndax moom lim waroon a def. na lépp def na lépp. daaw ci màggal gi rek. nee na daaw gi rek. wax na ne liggéey bi kat. wax na ne liggéey ñuy def amatu fi. nee sàmm ko rek ka ko rek ka fi des. ku rek. nee na jàmbaar nga jàmbaar li mu waroon def lépp def na na lépp def na ko. kon nag kon nag. yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal. yàlla nañu ko yàlla fayal. yàlla nañu ko yàlla fayal. barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Touba. Eh, man nag. nee na moom nag. Eh, maa ngi leen di seereel ne. nee mi ngi leen di seereel ne. xaw ma génn bëgg. amul genn bëgg. gudut bëggam ga. gudut bëgg waajur mu tedd wa muy Baye Cheikh Dame Lo. xaw ma lenn lu may bañ. nee na amul lenn lu muy bañ. lu dul lam daan bañ lu dul lam daan bañ. ak bëggam nag. nee ak bëggam nag. mooy Serigne Touba rek mooy Serigne Touba rek. lim daan bañit lim daan bañit mooy mooy lu baaxul rek. mooy lu baaxul rek. kon ci tënk. kon ci tënk. loola rek mooy sunu bëgg. loola rek mooy sunu bëgg. mooy li ñuy bañ itam. mooy li ñuy bañ itam. njabootam gii mu fi baax. nee na njabootam gii mu fi baax. daanaa wax ca bu yàgg. daana wax ca yàgg. naan nit de du ma ko wax ne. ne nit de du ko wax ne ko. yaa ma gënal sama bopp. yaa ma gënal sama bopp. waaye loola moom jóg naa ci. waaye nee na loolu moom jóg na ci. lu ma yëg nag moo ma ci jëlee. nee na ab yëg-yëg nag moo ko ci jëlee. ñii moom nee na ñii moom nga xam ne mooy njabootu Baye Sëñ Daam ñoo ma gënal saa bopp nee na ñoo ko gënal boppam te te loolu yàlla rek laa koy nee na te loolu yàlla rek la koy seedeel lépp luy lenn nee na lépp luy lenn buñ ko bëggee rek man bëggu ma nee buñ ko bëggee rek moom bëggu ko te loolu yàlla rek laa koy te nee loolu yàlla rek la ko seedeel kon maa ngi ñaan yàlla kon nee mi ngi ñaan yàlla ndeysaan saf ko dumoo yi li ubbil xadimi fardan ara waaw macha allah yàlla na ma leen yàlla sàmmal. nee yàlla na yàlla na ko yàlla sàmmal njaboot gi di ay rakkam. baax na jërëjëf waaw baax na jërëjëf macha allah waaw xol moom bu feesee moom ndab lu feesee yam faaw rek mu tuuru waaye lii mu wax daal wax munu koo gën a rëy waaw sëñ Tuubaa nag nee na saa boppam a la gënal du bañ naa la waxe olof la nee loolu waxe olof rek la waaye saxaaba ya su lenn masaan teew ku ne ku ne bëgg sa moroom jël ko kon kenn ku nekk sa bopp sa moroom la ko gënaloon te mooy waxam ji rek ndeysaan ah ñu xam ne nag ah lii moo fi ne mosu fee jóg sëñ Tuubaa daal waxoon na Seex Masamba ne ko na ngeen fexe ba jàpp seen lislaam seen liimaan seen lixsaan waaw daan ne ko nag lislaam xaalis a ko fi bëgg a jëlee liimaan jigéen a ko fi bëgg a walla wala wala wala ne ko liimaan tubaab yee ko fi bëgg a jëlee lislaam xaalis lihsaan jigéen ñi waaye su ngeen jàppee ñett yooyu bañ koo ñàkk faw rek ngeen di gis rakk dina ngoo topp mag waaye mag tam dina ngoo jiitu rakk topp ci ginnaawam loolu de Serigne Touba ko waxoon Cheikh Massamba yaakaar naa nag mooy lii rek macha allah kon Cheikh Ibrahima Khalil yow itam sa yéene jooju nga am ci say rakk. bismillahi rahmaani rahim. mbokk yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen seedeel ne maa ngi jéggulu ci baat yi ma yëkkati ndax mën naa ne kër suñu ñaar rek laa fa mag. waaye sama mag laa fi dajeel mu jox ma kàddu gi muy sëriñ Fallou mii sëñ Galas waaw ah euh, maa ngi ñaanal mag ña nga xam ne ñoo jiitu yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen tey ñaanal Cheikh Moustapha mii fi nekk yàlla wéral ko te yàggal ko ci suñ kanam euh, waaye nag suñu bàyyi sëriñ daam moom def na fi loo xam ne histoire dootu ko fàtte waaw waaw il a été marqué tous les empruntés mar mar wax dëgg yàlla marqué na emprunté yëpp li tubaab di wax ah suñ xalil nag lii nga def tey li sëñ Touba waxoon ci nahjul xadaayil xaaj yi ne tariqatul adabi rahmatu saqir kal abi wal ummi tawxil kabir mm-hmm. ah, wax jooju fet li nga ko tey wax dëgg yàlla yaram daw na am na am nga yërmande téye eh, ci saak waaw eh, ginnaaw bu loolu jàllee maa ngi leen di eh, xamal ne sëñ seexu naa mi lii mu def dafa delloo buum ca boy boy ba ndax dafa rafetal ndax man bàyyi suñ dam wax na ma moom ci boppam ne ma gis sëñ bi laajee ci jumaay arafat ji nee dafa génne joxe la mu joxe ba pare yëkkatiwaat na ko lii sama addiya te kenn ku nekk seede na ci yéen ndaje mi suñ Cheikh Lo Ngabou mujjee woote altine la ko woote gaawu mu dem ndaje moomu lu mu wax suñ daam waxal la wax te ba mu koy wax dara jotu ko altine talaata àllarba la génn kër gi gaawu ca fajar juróomi fan la ca la noppalu kon suñ daam ku toppee woon la ci liñ xam mm. waaw ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu jéggal ko te te yërëm ko te it uh, ab joxoñ la uh, boo xam ne li suñ borom di wax ne uh, innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna aqawaykum ak ah, rafetal na ko rafetal na it mbokk gi wax dëgg yàlla xale la waaye ñoo ngi koy ñaanal waaw man nag may li ma maa fi teew maag suñ fàllu mii waaye buñ moo fi teewee suñ fàllu jox ma ndigal mel na ne wax naa ci baatub sëriñ Cheikh Mbacke Lo ak suñ bu suñ fàllu bu suñ bu ñoom ñëpp waaw maa ngi jéggul wax ji bu baax a baax yaakaar naa tam sëñ fàllu xolam sedd na ndax kàddu yi rafet na te it day feddali rek ne mag ñi ànd bu rafet ba ñu àndoon xel dal na ci ndax ndaw ñaa ngi koy suuxat te yaakaar naa ne bu garab gi meññee rek meññeet bi ñëpp lay mën a jëriñ. si nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi nuyu ñëpp. soxna si nee mi ngi nuyu ñëpp. di siyaare ñëpp. di siyaare ñëpp. di balu àq ñëpp. di balu àq ñëpp. di sant sama doom yi. nee na mi ngi sant nag doomam yi. ndax cant gi ndax cant gi daana ko def. daana ko def. waaye tey bi mu ko yëkkatee. waaye tey bi mu ko yëkkatee. tuddee ko sëñ Cheikh Lo. tuddee ko sëriñ Cheikh Lo Ngabou. ci la gën na nag ci la cant gi gën a neex. ndax sëñ Cheikh. ndax sëñ seex ku baax ki dafay bàyyi ko muy sans bàyyi. nee na ku baax ki dafay bàyyi ko muy baayam. mu yor lépp. nee na mu yor lépp. ñuy gone yu tuut. nee ñuy gone yi tuuti. kenn demagu ci kër. kenn demagu ci kër. sunu borom miy dogal. nee suñu borom miy dogal. bi waa kër gi liggéey. bi waa kër gi liggéey. mu dem tournéem bu njëkk. mu dem tournéem bu kër gépp lakk. nee kër gépp lakk. lu dul pick ba mu yóbbu. nee na lu dul oto pick ba mu yóbbu. desul ci kër gi gi. nii ngay séenee lafi alxuraan yi. nee na nii ngay séenee lafi alxuraan yi. mu mbaaral sama yaay ñoom kër sëñ Abdou Xaadir. nee na mu mbaaral yaayam ñoom fii ci kër sëñ Abdou Xaadir. ñu yeggale fa ab liggéey. ñu yeggale fa ab liggéey. ñu nekk ca loolu ba mu ñëw. nee na ñu nekk ca loolu ba sëñ bi ñëw. sañcaat kër gi sañcaat kër gi. mu melaat na meloon. mu melaat na meloon. mu yor baayoo yi. mu ku ci nekk ku ci nekk ci ñun ñii ci ñun ñii moo la léemu nga dem nee na moo la léemu nga dem kër sëñ Ibra demee ba ca déwén sa nee na ba ba ci déwén sa laa dem kër sëñ Abdou la dem kër sëñ Abdou Salaam nawet bi ma fi jëkk nawet nee na nawet bi ma fa jëkk nawet sama yaay di baylo nee yaayam di baylo bu xëyee bu xëyee na ko yóbbulub taalibe na ko yóbbulub taalibe ma ànd ak may toog fa garab ga ma ànd ak soxna may toog ci garab gi ba ni at mi jeex bayu ma ba ni at mi jeex nee na ba suñ borom def ma dem foofa nee na ba suñ borom def mu dem foofa kii nga xam ne moom moom bis bi nee na kii nga xam ne moom moom bis bi di naa muy sëriñ Ndaam loo muy sëriñ sëriñ Ndaam loo bi sëriñ Cheikh Lo nelawee bi sëriñ Cheikh nelawee jaxasoo nañu nee na jaxasoo nañu dafa ñëw di Cheikh Ibra dafa ñëw di Cheikh Ibrahima ci famille bi ci famille bi Cheikh Ibra Fall di Cheikh Ibra Fall ci famille bi ci famille bi di def ci magam lu baax nee na def ci ay magam lu baax di def ci nun ñuy jigéen nee na ba def ci jigéen ñi lu baax di ko di nu fekk fanu ne di leen fekk fañ ne guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg mënuñu koo fay nee na mënuñu koo fay te mboolem ku mbokk sëñ Ibra nee te mboolem ku mbokk sëñ Ibra moo la gën a jege sëñ Ibra Lo nee na a jege sëñ Ibra Lo soxna Mariama Lo jur soxna Aminte nee na soxna ma sëtu Mariama Lo mi jur soxna Mariama Lo soxna Mariama Lo yaa Aminte Gueye mi jur yaa Aminte Gueye moom sëñ Ibra bokk benn baay nee na moog Cheikh bokk benn baay kon loolee ba mu amee. nee na kon loolee ba mu amee. man mii toog di wax. moom mii toog di wax. guddi ga may demee Touba. nee guddi ga may demee Touba. soxna ma sama ma sama mayu ndey. kon ku mu moo la gën a jege sëñ. nee na moo la gën a jege sëñ mooy nijaayam kon nag gone yii. kon nag gone yii. ci kattanu sëñ Touba. nee na mi ngi ñaan ci kattanu sëñ Touba. ak Cheikh Ibrahima Lo. ak Cheikh Ibrahima Lo. feeg ma leen di fekki. nee na feeg mu leen di fekki yàlla na yeex. lu ñu am lu ñu am. maa ngi fi seen ginnaaw nee na mi ngi seen ginnaaw.

seen fay nee na amul seen fay seen baay Moustapha mii ma am macha allah macha allah yal na ngeen yàgg ak moom yal na ngeen yàgg ak seen baay sëñ Moustapha nee na barke sëñ Touba mënumaa toog sax di ko wax wallaay lool bi may ñëw tey mënumaa ñëw waaye dama ne dara du yëngu sa kër ga wallaay ndeysaan moo sam sax bu woote woon ma ñëw allahu akbar macha allah macha allah jërëjëf soxna si bàjjan jërëjëf ah lii day mëntu na ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, moom mbir yi moom mun bën teewee rek doy na yàgg na ko teewee te feeg nuy ànd ak lu xew nu ànd foog yéen te dara gàtt su ko defee ñu wéyal waaw waaye eh, ndax eh, astafirullah astafirullah bii xasida googu ak Ecfini loolu dama ko moom laa jaayanteeg moom keroog bi mu làqoo ba ba ba koy fekki amul benn su muy génn te defaloon ko suñu daam eh, loolu nag doy na waaw loolu rek la <laughs> loolu rek la waaw waaw wax ci ay bayit rek marsiye boobu bismillahi rahmani rahim allahu akbaru gaaba alilmu walwaraau وغاب حلما وأسرار الغريبات الله أكبر غاب العلم والورع وغاب حلما وأسرار الغريبات الله أكبر الشمس الفضل قد أفلا wahadda ruknan aziman lil a'immati kayfa ihtiyali sëriñ daam lu mada wa mada yumnun wa yasun wa anwa alkaramati mada sëriñ daam ila arrahmani murtaha ya hasrati in fatani hablul wisalati mada sëriñ daam ila arrahmani murtaha يا حسرتي فاتني حبل الوصالات مضى محبا مريدا للخديم كما qad kaana nuuran wa misbaahu dujunnati mata sëriñ daam abul yettaami wa abul aytaami wa duafa wa kaajana fi rajilan wal awisaati wa man lahunna wa man lakum wa man lahum wa man lana baadu fi kulli zafraati wa man lahunna wa man lakum wa man lahum wa man lana baadu fi kulli zafraati ahin ala faqdi man qad kaana daydanuhu taqwa ilahi wa awn bil xaliqaati aahin ala faqdi man qad kaana daydanahu taqwa ilaahi wa awn bil xaliqaati aahin ala faqdi zi juudin yusaaciduna bil ilmi wal maali wan nicma al xasiyaat qad kaana fii ngaabu yaqfu isra waalidihi qawlan wa ficlan wa yaqdi kulla xaajaati qad kaana fii ngaabu yaqfu isra waalidihi قولا وفعلا ويقضي كل حاجاته بين الألوف بلا من سجيته يمنه ويخجل حاتم في العطيات tabax na kër gu rafet gu yaatu ngir sëriñam Cheikh Ibrahima Lo lii laaj ko waa Ngaabu tabax jumaa ju rafet ku dem julli yu jëy jumaa ju amul ci biir Ngaabu yeesal la rawatu sa waa waajuram sëriñam wax jéem wax soo ko weddee laaj ko waa ngaawu yeesul aradatu sappiyam waajuram sëriñam wax jéem wax soo ko weddee laaj ko waa ngaawu mbaar dafa mbaar moo rafet te yaatu loolu te dëgër felag si ma ak béton mbaar maa maa nga biir ngaabu lu aajure yi gaaw jinne yi daan rëy ku dem fa moom mu faj ko bu gaaw jinne yi daan loye mu leen jinne biir ngaabu euh, loolu daa doy na euh, danaa defaat incha allah seen Cheikh naa boobu moom moo defoon danaa ko indi bu soobee yàlla jërëjëf. wax dëgg lii moom ñëpp ko defal jërëjëf ndax bàyyi si wax ci lu baax rek ñëpp nga ko xam jërëjëf. moom mbaar mi sëñ Touba jumaa yàlla léppam yàlla la. في النار بأهل بدر زاد قدري نوال خير الله في النكار كل سن لي جرى مكار حلمني الرحمن في السفينة بأنني قديم المدينة براني الله لدى كناكري من كل جالب إلا المناكرا أسب أن الله في كرمزا قبل مبارسي واني قلبسا دعاني ريم عند الداوم لو بما أغنى عن التساوم يسر للمنى لدى لمبر ولي من قاد لي ما خاب عن كل ولا لقاد أهل بدر الوسام من زحزح الواشي والعذوداية يقود لي حيث أكون الله تفسير لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأجل الذي لا مهس إلا إياه لمن أزل فلا هادي إلا إياه لمن أدل ولا معطي إلا إياه لمن أقل أحمده سبحانه حمد الساكرين ولا أمل وأستغفره استغفار مذنبه والأنزل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبجوده ترشح البريات وبرحمته تبدل الشيئات إلى حسنات حافظ الأرض ورافع السماوات xaaliqu samsi walxamar wa zaa'iri lkaainaat alhamdulilahi rabil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayyidina muhammadin almabxuusu rahmatan lilaalamiin wa ala aalihi wa saxbihi wa xayra xadiimihi wa man tabi'ahum bi ixsaani ila yawmi ddiin. qaala allahu subhaanahu wa taala la in shakartum la azidannakum وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر maa ngi nuyu mbooleem mbokki jullit yi teew ci jataay bi di jiital ci nuyoo bi saahibul fadila a cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér di ñaanal sëriñ Moustapha Lo mi toog jataayu cheikh Ibrahima Lo yàlla defal ko gudd fan gu ànd ak wér sant mbooleem mbokk yi ma bokkal sëriñ Daam Lo bis bi ànd nañ koog man ci njiital sëriñ Xalil loo di ñaan yàlla na leen ak mbokk fay di beral ab nuyoo sëriñ Mouhamadou loo di sunu bunt ci sëriñ Touba sëriñ Daam suñu waajur boole wonnu ak moom di ko di ñaanal yàlla mottalib liggéeyam ci lislaam bi barakati Cheikhul Xadim di nuyu njabootu gi ñu di nuyu njaboot ki ñu dara jaalee bis bi di sëriñ Cheikh Lo mi njëkk a wuutu Cheikh Ibrahima Lo ndax danoo amoon yéene yi at mu ne ñu tuddee ko kenn ci njabootu Cheikh Ibrahima wala ay mbokkam di dellu di ñaanal Serigne Cheikh Lo yàlla li ko ay leer ak mboolem ay rakkam dinaaw nuyoo bi ak siyaar bi jaadu na bu nu dajee ci bis mel nii ñu fàttalante ak yéen ndigali sunu borom yi ba ci jiitu mooy ragal yàlla te nangu koo jaamu tey tuub fu ñu tollu sunuy bàkkaar tey rafet njort ne yàlla dana nu ko jéggal ndax moo wax si lamiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dana jéggal ab jaamam saa bu ko jéggaloo kon nañu rafetal suñuy njortu tey gaaw di tuub tey wattu safaan ba muy yeex a tuub ndax gunti tuub yaatu na waaye am na waxtu wun koy tëj ci jaam bi bokk na ca waxtu bokk na ci waxtu wu nit ki tëddee te mu leer ko ni dootul jug ay buntam tëju na fay jëf rekk mooy la ci des kon nañuy tuub tabañ di ko wutal waxtu ndax faatu dafa baaxoo bett aji faatu ji kon yàlla na nu yàlla di jéggal ci mboolem safaan bu nu def ndax muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na moom ak seydinaa Isa alayhi salaam bu leen yàlla toppoon ëllëg sax du nu mucc kon ki gënal yàlla ci mboolem lu mu bind te sunu boroom seedeel ko ni moom du waxee bakkanam wa maa yantixu xanil hawa kon ñëpp ñoo war a tuubal sunu boroom tey wattandiku ñaxtu tey sant ñuy fàttali mbokk yi lu waral ñu woote bis bi mooy sant nit ku am ngërëmal yàlla te sant nitu yàlla mooy sant yàlla amul ak wuute ndax sunu boroom lu muy def faaw mu am fu mu ko jaarale looloo waral ñu woote bis bi tuddee ko sant Cheikh Ibrahima Lo te ndigal li jóge woon ci sama sang ba sëriñ daam Hamsatu yàlla na ma ko yàlla fayal te waxtu wu nekk muy dotti ay xéewalam ci moom bi barakati xaadim rasul Cheikh Ibrahima Lo nag daraja daraja ji gën a rëy ci moom mooy taalibeb sëriñ Touba la woon bu sëriñ tuubaa gërëm sëriñ tuubaa itam doy woon ko ci lu bari te yàgg a joxe misaal ci moom bokk na ci ñi mu seedeloon seen ñàkk bàkkaar keroog ba mu koy seede dafa wax ne bàkkaar ku ko def yàlla bindal la ko waaye Ibrahima mënta def bàkkaar sëriñ tuubaa itam moo waxaat ne ku dégg baatu Cheikh Ibrahima Lo ci julli yaramam xaraam na sawara daa mas di julli moom Serigne Touba Cheikh Ibrahima Lo di ko jottali keroog la seede loolu ci moom Cheikh Ibrahima Lo nag ku mënoon a yare la ku amoon sutura la ku amoon ay teggin la ba ku mu yar faw loolu feeñ ci yow kon yàlla na nu ko yàlla fayal li waral ñu doon leeral ci moom mooy boo wootee jaadu na nit ñi xam ki tax ngay woote maa ngi yeesal sama maa ngi yeesal sama cant ci mbooleem ñi teew ci bis bi di ñaan yàlla fayal ma leen in uridu ilal islaaha mastataxtu laka shukuriya ala kulli sana yaa man taala an manaamin wa laka shukuriya bila intihaa'i yaa man lahu sayriya su intihaa'i wassalaamu aleykum wa rahmatullah kon sëñ bi ñaanal mbooloo sëñ bi kon day sëriñ bi nee na ñu tàllal loxo yi sëñ Ibrahima Khalil ñaanal mbooloo mi na ñëpp tàllal te wax amiin te ku ne fas li nga bëgg amiin ya rabbal alamin yal nañ ko teewaat déwén kenn bañu manqué ci barki Xaadimu Rasul amiin ya rabbal alamin ñu ngi sant rajo yeeg site yëpp amiin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin ya rabbal alamin jërëjëf loolu jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu sama xol seet na lool seet na lool itam وقلبك على سادات الأموات أبي الأراضي